L'autoroute Thiès-Touba. Ce projet Ila-Touba est unique euh, en son genre, unique d'abord par la taille du projet. Le volume des investissements, c'est la première fois que notre pays, en un seul projet, engage près de 400 milliards de francs CFA. bu fekkee ne Eh, yàlla dimbali na ko may na ko tawfiq eh, ba yàlla xeer ko ci eh, Serigne Touba xeer ko ci mu liggéeyal sa ko fii muy liggéey bu rëy boo xam ne ñëpp a koy bokk waaw ah, ñëpp nit ñëpp ko bokk. kon nekk ci taalibe yëpp ñu yëgandoo ko am ci mbégte gàttandoo ko mbégte ak cant te ñaaral ko itam yàlla suñu borom sàmm ko te te te ko kàttanal ko ba mu àggale bokki bokk taalibe képp koo xam ne yàlla man loo na la ko. nga ñëw teew ci bis boobu yi ngir euh, santale ko yàlla santale ko Serigne Touba ci xéewal googu yi nga xam ne ci jiiti réew mi def na ko fi te defal ko Serigne Touba te moom mu fi Serigne Touba war koo seere ngir ñëpp dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw ba ñu ko liggéeyee ba mu àgg nag ñu fas yéene koo inauguré ñaar fukki fan ci weeru décembre gannaaw bu 15 heures jotee ci diggante daaru sow ak kànka bis boobu nag mbokk yi di bis boo xamante ne bii sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général kullu murit mi ngi koy fàttali mbooleem taalibe yi waaye nag di sàkku ñu teg lépp rek ci yar ak teggin akuk dal ñuy sàkku itam ci mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo fa fas yéene teew sàmmonte ak war may dëkk bu sell bi di Tuuba Fatima